kilo dugub 300 400 kilo gerte 600 en ce moment fu de def de ñu celui-là la ne kilo 250 c'est parce que gerte bi Amoudara dara que j'ai jëndee keb nga jënd ko 600 donc nit ñi dañuy souffrir dëwlin dans les villages les plus reculés litre de 1500 francs lañ koy j'ai kon ñu nous ne suñu fi que ci auguste assemblée bi population bi ñooñu tànn kon dañu bëgg jàkkaarloog chef de gouvernement de ñu wax ñoom beneen bi nag monsieur le ministre de la justice euh, on est très fiers de l'administration euh, administration pénitentiaire et